Aboubacar Saddiq Njool Mokkaa ngi toog mu ne ku ñu tudde Babacar di la ko woowe ba nga dem bar sàq bàkkaar boo mën a def ci dina dinaa la ramm yóbbu la àjjana ndeem yaruloo xaj bu yoon tere dëju Omar ne ñoo ne manit ku ñu tudde Omar nga am chance tur soppeekuwul ba ah, ba nga ànd ak moom dugg a bàmmeel bàkkaar boo mën a def ci àddina dinaa la rammu yóbbu la àjjana ndem yaruloo xaj bu yoon tere nga rëy jënd dinaa ñëw ci xaj bu yoon tere Ousmane ne ñoo ket ne manit day ku ñu tudde Ousmane di la ko woowee ba nga dee ànd ak turwa bu bés pénca lu sa bàkkaar bari bari ma boole la ak bàkkaar ba rammu ndeem yaruloo xaj bu yoon tere dëju Alioune fudd na ñokkat taxaw ne man it day ku ñu tudde Alioune turoo soppeekuwul ñuy la ko woowee ngay nangu belal ak sa day jooroog tur wa dem bar sàq ëllëg bàkkaar boo mën a def lu bari bari bari dinaa la booleeg bàkkaar ba dugal ajjana ndeem loo xaj bu yoon tere sang bi na ñokkat sallallahu alayhi wa sallam ne ku ñu tudde Muhammad di la wooyo turwa te soppekuwul ba nga dem bar sàq dinaa la rammu doonte yar nga xaj bu yoon tere